<laughs> sérieusement tey tardé wul xam nga fan yëpp da ngay tardé te man ah non non non taxaw rek man dama ne non non non man dama ne nit dégg xaar rek man dama ne nit boo xam ne bu nit defee lu baax dama koy wax bu defee safar dama koy fan yëpp da ngay tardé mais tey moom ah, sérieusement lépp mën na tey tey macha allah jërëjëf tey mën na jërëjëf dama wax jërëjëf waaw. mais doo may pap mu ne. ah Diar. ah allo. Diar an sam bos. doo may pap Mère, Tu vas bien? Où? yoon na de. bul xam ban heure yu jot sept heures dix. waaw. dix minutes moo de dem vingt lañu doog. vingt boobu noddu nañu. ah tey moom tardé nga. nee nga nee nga mu def ci koor gi baax mu sedd tey lañ nar a tardé di dog bu tardé dog nag wax dëgg fa yàlla supp bi xanaa doo ko dogee supp bi lay dogee waaye dëgg yàlla